ah mais man tamit tur bi dama koy leb mais maa ngi dëkk daari mi Minam mais série bi neex na trop neex na mais tamit am na lenn lu ma si naqari parce que li ma si naqari mooy sénatrice bi mooy moom ni mu salte na aussi tamit mën na koo gën a changé tamit ni mu def keroog kii tamit neexuma ni mu def keroog kii nii neexuma dara dara neexu neexuma si. jàpp góor yow kum gënoon a bëgg ci àddunam nga koy maltraité te naan ko na ko rey loolu xam nga ne du yoon mais heureusement kooku deewut mais am na tamit lu ma ci gën a neex dama bëgg njoon na takk euh, aana buy takk parce que Aïcha dafa bëggoon njoon mais taxut mu wax ko ko bëgg na njoon mais taxut ba tey mu ne njoon dama laa bëgg ba njoon demal ci boppam aana ne dama laa bëgg mais kon góor moom loolu mooy ku mbëgg rekk moom lay takk te am naa yaakaar que mooy njoon aana lay takk mais aana keroog gis na gis na njoon bi muy fóon Abdel gis na ko mais loolu tamit du yoon bu ma soñoon daal aana na def attention bu baax a baax teg si tamit di ko yaande di wax na daw est-ce que kon gént googu moo nar a nekk dëgg mais aana moom bu dee tamit théâtre bi du am sens yaakaar naa kon Yandé moom moom mooy dee seen rab yooyu moo ko kay maa leen ziar di leen jox seen wàccuwaay. waaw salaamaaleykum mu la lu xew TV di leen ziar di seen wàccuwaay lu bëri bëri maa ngi jégalu bu baax ci ku dee dugal vocal bu ko gëjee dugal nii di leen suma yóbbee ngeen jàllale ngir yàlla parce que euh, message bi nii waa Mœurs moom. leen wax ne nag kontaan nañ ci yéen trop parce que Seydouna Mohamed billahi kontaan nañ ci parce que man nag yi nga xam ni man depuis bi ma nekkee aduna bu léegi nii su ma concentré wu comme série bu mel nii di nga xam ne dafa concentré wu de épisode de un à quarante quatre ba léegi nii bàyyi trace ma laa lépp suivre gis naa si njëriñ gis naa si yeewute waaw gis naa si changement parce que série li koy doxal mooy li nga xam ne mooy tey bu ñu defee dara mu jur leçon mu jur yeete mais mœurs yi dañ koy doxal waaw léegi wax ni nag ngeen góorgóorlu si bu baax man suma artiste suma actrice ci série bi mooy Iman waaw di ko wax euh, sœur sister continue rek dina baax ma sister parce que euh, yow doon nga ku neex nit jigéen day am fula gëm boppam góor loolu yàpp Iman tey yow xam naa ne foo mën nekk ci Dakar tey man di def la duub ma seet si la ndax sa série bi nga sa sa sa sa rôle du théâtre bi rek tax na nga doon ko ma neex waaw di wax di ziar ñëpp ma ñoom ana waaw la guerrière ay ñoom Marley ñoom Yandé waaw Collé sama doomu nday Collé moom sama waay la Collé moom parce que yenn saa yi damay jël ay photos sax di ko def sama de WhatsApp billaahi ndax dafa doon guerrier quoi moom moom te xaw tàngal man la quoi man jël ay photo ma ñu daal di def profil sax ndax dama neex mais imaan moom mooy suma actrice quoi imaan bi laa wax wax ne góorgóorlu allah waaw ma monsieur Diop bi <laughs> le chômeur wala le showman. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu waa Brigade des Femmes maa di siyaar di leen nuyu. waaw di kontaan mm, bu baax si yéen nag di ndax li ngeen di suyee mi macha allah man neex na ma lool su ma koy seetaan damay kontaan lool waaw damay kontaan lool macha allah dëgg yàlla fan yi nga xam ne amul sax man damay damay kii quoi damay xaw a wéet ci benn côté tuuti bu heure bi jotee mais macha allah macha allah mais imaan damaa neex lool li mu moom macha allah macha allah allah mais ñoon ñoon ñoon na takk ñaar ñëpp rek waaw ñoon day takk Ana takk euh, Bébé Aïssa waaw comme que ñoom ñoo bokk nii liggéey ñu bokk euh, brigade bi ah kii xëyee tey ëllëg kee xëy loolu yokk fi dara Abda moom nañu ko jàpp quoi nañu ko jàpp waaw ndax moom li muy def moom euh, ruru bu ruru bu garaaw daal lay suyoo moom mais siyaara tamit comme li aussi li waa ji wax man. bi ni leen ko rey dama métti quoi ndax siyaara bi dama neex li monsieur dafa neex lool macha kon yeneen yàlla defal jàmm daal jàmm gën a taxaw daal maa ngi tuub di bu baax nag. asalaamaaleykum wa fila macha naa leen sant bu baax a baax a baax a baax yéen a ngi ci jàmm a bu baax a baax a baax waaw man de moom la digal sama gis moom aana moom warul dee moom. moom wax dëgg moom Zouzou rek la bëgg mu éliminer kii quoi Abdel quoi Zouzou rek moo war a Abdel quoi Zouzou vraiment géeree la quoi man ruuram dafa maa neex rek ruuram moom dafa maa neex rek Aïssa moom Aïssa dafa ñor Aïssa moom ñi ñi fi nekk ñëpp a ñor Aïssa ak ki kii lu mu ku tàng ki rek ko mom gars yi moom kooku dañ koy bàyyi ci biir rek dañ koy comprendre kooku moom gars yi moom kenn ko day tàng tàng mais tàngul.